dañuy sant yàlla rek xam nga ay wax moom du fi jóg kuy def lu baax ñu wax ci yow kuy def lu bon wax ci yow donc asi sama frair sama xarit la àdduna bi yëpp xam nañ ko euh, lii dañ ko teew at yu bëri ñu ngi ñaan yàlla di ko teew at yu bëree bëree bëri am nañ ci mbégte lool bi ñëwee ci kër gi mu fees dell bernde yi di daw ñëpp di kontaan ñuy sant Seydina Mohamed. Assane Ndiaye toll ci choc yi Assane Ndiaye làmb dafa nam mu dal genn nga gamu gi ni <laughs> waaw sok yi commencé na Iba Mar job 5 grands combats euh, arène national 5 grands combats le 29 décembre lañuy commencé digënté Tafa mbeur aline sey Junior ñi ñëwaat digënté Fils de Balla Général Malika. mais kris bi lamb ci am ñëpp di wax asan non lamb amul Kris, nit ñi ñoo am kris mais lamb ji amul kris am na ñu bëri dañuy wax pour ay tour pour promo mais la ñuy wax ñun xam nañ ne duñ ko def da ngay gis nit xam nga làmb dañuy dem ba yàgg sax valeur bi am na nit ñi ñu ngi koy bëgg a yàq nit day jóge fële ne damay waxaale ji Balla ak Modou Lo waxaale wala Modou Lo Ama Baldé te leer na la nag li muy waxaale ak li muy defi xamu ko du ko def reeka bugg wut ci tur rek képp ku bëgg a tural ci làmb ngay ñëw pour am ci tur rek demaat mais ñun ñi nga xam ne bu neexee ñu ngi si làmb ji su naqaree ñu ngi si làmb ji xam nan combat moment bi muy taxaw ak moment bi ñu koy fësalee